alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala alfaatihi alxaatimi sayidina muhammadin nasiri alhaadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci biir réew mi ak ci bitim réew tànn leer ak jamono di ko leerloo muy rajo télévision bu Walfajri fu ngeen mun di nekk ci àdduna bi rekk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 yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi di delsiwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow ci wàllu miraas li ci xaju te démb bi may tàggoog yow rekk laa la dëxaloon ci kartanal yàlla miiraasam zawil arham muy boroomi ruxum yi te mooy wàllu meen ndax ñaareel ñi bokk ak néew bi ci wàllu meen bokkuñ ca ña koy donu wàllum meen nag lu sakkana sakkan la léeg-léeg danay xamee jege ñaale gu soqe ci cosaan meen danay xamee ci bànqaas te lu soqe ko ci doom meen danay xamee lu soqe ci wàllu mbokk imaam Ahmad wax na ci tudd ak ñu mujj ñi imaam ahmad jaala asxaabu asxaabu asxaabu imaami ahmad fi lmashhur inda almutaaqirina minhum jihaati zawil arham thalathan def nañ ne daal wàllu boroom ruxum yi ñett la dana xamee ci baayoo muy ubbu watu dana amee ci umumatu ci ak yaayoo dana amee ci bunuwatu ñoom ñett yi rekk lañ ko def waaye uquwatu ñoom dugaluñ ko ca mooy taalibeem imaam ahmad yu mujj yi loolu lañ wax ubbuwatu nag buñ ko waxee rek képp ku yooroo ci baay rekk dugg na ca yooroo ci baay ci wàllu maam ya yëpp muy maam ya maamaati mataar maamaati mataar yooyu yëpp ci baay lañ yooroo ba bokk ci néew bi ñooñu danañu bokk ci boroomi meen yi ñii maamam yu jigéen mën na koo doon mu ne tamit mbokk yi nga xam ne amuñu cër bu ñu leen di cëral xamut ci alquran xamut ci sunna xamut ci xasable ñooña tamit ca meen ya lañ mbokk lu mel ni kii baay yi yaay yi baay baay yi yaay yi baay sa baay mii jur la yaayam baayam kooku amul cër ci alquran amul cër ci sunna amul cër ci boroom xam-xam yi kooka ci wàllu meen ya la wala lu mel ni bàjjan ya ndax donn gi lañ doon wax yëpp baay tax yi moom danañ donn doom yi bàyyi tax donu waaye bàjjan xamul fenn fu muy dono tam ba bàjjan mooy sa mbokkam baay naka noonu tamit bàyyi taxab baay dana donu bàyyi taxab maam dana donu waaye nag bàyyi taxab yaay moom du donu doomi mbokk ay doomi mbokk sa doom yu jigéeni mbokk yi duñ donu banaatul ixwati li xayri ummin doomi jigéeni mbokk yu duhut euh, ci wàllu nday ñoo ñooñu duñ donu sa mbokk mi nga bokk ak ndey ak baay mbaa ngeen bokk baay euh, doomam yu jigéen yi duñ la donu doomam yu góor yaay donu su ko defee kon nag tabaarakallaahu Amadou Darame ñu déggee ko noonu awlaadul axawaati doomi mbokk yu jigéen sa mbokk yu jigéen yile bokk yow ndey ak baay wala ngeen bokk baay seen doom yu góor ya duñ la mën a donu comme ni nga xam ne son doomi jigéen sax duñ la mën a donu ah li xayri ummin ci lu duhul ndey mooy mbokk yi duhul wàllu ndey naka noonu tamit doomu jigéen yi baay tëx ya sa bàyyi tax yile doom yu góor yaay donu waaye doomam yu jigéen ñi duñ la donu képp koo xam ne dafa yooroo ci ñii ma tudd ku cay donoo xamu ca ku yooroo ci bàyyi yaayi baay walla mu yooroo ci ay bàjjan ci ni ki sa doom yi bàjjan nag yu demee noona walla mu yooroo ci bàyyi taxab yaay walla mu yooroo ci doomu jigéeni mbokk mu góor ci wàllu ndey ak baay wala ci wàllu baay waaye waxuma ci wàllu ndey wala doomi góor yu soqee ci mbokk yu jigéen yu soqee ci yow ci wàllu ndey ak baay mbaa ci wàllu baay waaye duhun ci wàllu ndey wala doomi jigéeni baay tëx képp ku yooroo ci ñile ak ñile ku la cay doon amu ca ñooñu ñëpp ci wàllu meen lañ bokk naka noonu wàllu meen bokk na ca wàllu yaayoo al umumatu buñ ne umumatu nag dana dugal mbooleem ñu yooroo ci yaay soqeekoo ci yaay ña ca soqeekoo nag maam yu góor ya ca lañ bokk yi nga xam ne nii ñoo fi indi yaay maam yu jigéen ñi fi indi yaay ca lañ bokk mbokk yi nga xam ne tamit alquran cëralul leen waxuñ danañ don waxuñ danañ dañ ci du ci xasable duut ci cër ñooña ñëpp ci meen ya lañ bokk waaye dañ caa bokkee ci wàllu yaay lu demee ni bàyyi yaay xam nga ne sa yaay ji jur la baayam du la doon lu mel ni sa ay nijaay sa nijaay yële bokk ak sa yaay ndey ak baay mbaa ñu bokk baay duñ la doon say tànta yii duñ la donu bokk ak sa yaay ndey ak baay wala ñu bokk baay dañuy nekk ay jigéen duñ la donu doomi mbokk waaye doomi mbokk yooya nag dañoo bokkee ci wàllu ndey duñ la donu ak képp koo xam ne dafa yooroo ci kenn ki ñile ku la ci doonu niwu ca xam nga seete woon naa ko fële waaye boo gisoon ngi seeti ko muy awlaadul axawaati Ah, eh, li xayri ummi lañ waxoon waaye booba fii lañ ko doon xaaree wane ne eh, ñooñu dañoo bokkee ci wàllu meen waaye dañ caa bokkee ci wàllu ndey waaye bokkee wuñ ci meen ci wàllu baay moo tax ñu setti woon ko waaye du tax sax ñu doon kon nag ñooñu la kon li feeñ daal ci mazhab bi mooy doomi mbokk ci wàllu ndey soqeekoo ci wàllu baay nga xam ne jiitaloon nañ ko ne al ixwatu li ummi wa furuuhum laa silata lahum bil abdi itlaaqan ñooña jokkoowuñ ci baay ci ndey lañ jokkoo naka noonu kon dugalal naa la umumatu gi ci wàllu meen dugal la bunu watu gi ubbu watu gi kon ci wàllu meen li ci des nag mooy bunu watu gi su ma ne bunn watu gi muy ci doomoo dana ca tàbbi mbooleem bànqaas yi mooy soqeekuwaay yi ña soqeekoo ci ki te ñooña amuñ cër ci alquran amuñ cër ci sunna te amuñ fenn fu ñu leen tuddee ci xasable ñooña nag ñooy ñoo xam ne koo ko déggee ñaareel diggante moom ak néew ba rek jigéen a fa dox sa digganteeg néew bi su fekkee jigéenal a yow ki la boole ci néew bi jigéen la lu mel ni doom yu góor yu soqeekoot ci doom yu jigéen ah duñ doon ndax ki boole ci néew bi mooy mooy doom ju jigéen ji moo tax sax yaag néew bi bokku leen sant doo ko doonu dara wala doom yu góor yu soqeekoo ci doomi doomaat yu jigéen doom yu jigéen yu soqeekoo doom yu góor yu soqeekoo ci doom yu jigéen yu soqeekoo ci doom ju góor ma mooy awlaadu banaatil ibni su boobaa yow kii la boole ci néew bi jigéen la kon képp koo xam ne ñaareel boo ko laajee lu la boole ci néew bi rek mu ne ah kii deekat moo jur sama yaay doo mën a doon mënoo ci dara wala mu ne moo jur moo moo moo moo maanaam moo juraat ki moo jur ki jur sama yaay ah dañ lay wax ne la toppal fii doo doonu dara nga ne waaw mag kii ñoo bokk di kii Ah, doom ju góor la rek man may doom ju jigéen doomi yëkk la ak wël wël moom doom ju góor a ko boole man doom ju jigéen a boole ñu ne ah, comme moom doom ju góor a ko boole dana donu waaye yow comme doom ju góor jigéen la boole doo donu ndax gis nga doom ju góor jële boole ko ba tey jël jël santaanu lay jël sant ki dee rek moom ñoom moom bokk sant waaye ki doom ju jigéen boole ah mënuñoo bokk di sant kon nag du donu dara. kooku mooy bu nu watu ak képp ku yooroo ci ñoom kooku daal boo ko doon wax mooy man baynahu wa baynal mayiti unsan ka awlaadil banaati wa awlaadi banaatil ibni wa man adla bihim du dem kon du mën a donu su fekkee dafa dajee ñaar walla lu gën a bari ci wàll su boobaa ka gën a jege néew ba rekk mooy donu ka ko gën a sori ñi hiir ko dañ koy hiir su boobaa su fekkee ci ñaari ci ñaari wàll lañ nag ah danañ leen dañuy dañuy dañuy yéegal ñaar kenn ku nekk ñoom ci aji donn ji ak lu mu sori sori ca darajaam ñu séddalee alal ji ci seen diggante su ko defee kon nag fa isa tamaa isnaani fa akthar fii jihatin fa ayuhuma wasala ilal waarisi awalan kooka xajabal aaxara wa in kaana fi jihatayni alxaqnaa kulla waaxidin bil waarisi allazi atlaa bihi mahma baud man mahma baudat darajatahu suma qasamna al maala bayna al mudli bihim fama saara li kulli waaxidin aqasahu al mudli kama sabaqa loolu nag su ma la ko bëggee misaal nit a dee bàyyi doomi doom dafa bàyyi bintu bintin jaazar bi ku bàyyiwaat waat bintu binti bintin bàyyi doomi doomaati doom bàyyiwaat bintu binti binti hammin bàyyi doomi doomu bàyyi tëx aa ñii ñépp ca meen lañ bokk waruñoo donu alquran joxul leen cër sunna joxul leen cër xamut benn boroom xam-xam bu leen jox cër waaye bu néew bi dee xamul kenn ku koy donn ci wàllu gaño men rekk a fi ne dañ leen di loo su boobaa kii nga xam ne doomi doom la moo gën a jege doomi doomaati doom kon doomi doom moomu ngay jël jox ko nisif ba mu wàccee taxawaayu doom moom ngay jox ni nisif ba de mu toxaw taxawaayu doom la ca des nga jox ko doomi doomaati doomi baay tëx mooy bintu binti binti la am mi su ko defee nag bintu bintu bintin moom doo am dara ndax kali dafay taxaw taxawaayu baay tëx nit a dee xamul kenn ku koy don ñi laaj lum fi ba ñu ne fanweeri million ñum fi ba ñu ne doom e sët bu jigéen la fi bàyyi daal bu soqee ci doom ju jigéen direct jëlal genn wàlla xalal jël lépp nga jox ko sët bu jigéen booba soqee ci doom bu jigéen bi mu taxaw taxawaayu doom bu jigéen doom bu jigéen dana donu nisif mooy cëram waaye doomaati doom bu jigéen moom du donu waxuma la doomaati doomaati doom kon nag dañ koy wàcce waayu yaayam jox ko la doon yaayam di xam comme yaayam néewu fi su ko defee tamit ñu ko fiy neexal néewuñu fi jox ko genn wàllu xalal ja doomaati doomaati bàyyi tëx dañ koy wàccee wàcce waayu bàyyi tëx te xam nga bàyyi tëx day doonu ci asable la ca des ca xalal gi ñu jox ko ko doomaati doomaati doom moom mooma du am dara mu jeex kon nag nii lay demee dafay taxa taxawaayu bàyyi tëx bi mu jeex wala shay'a li binti bintil binti li ana binti li ana binta binti aqrabu ilal waarisi minha fa taxjubuha li kawniha fi jihatiha waaye nag walam taxjub bintal ammi an naasilati li annaha laysat fi jihatiha doomi doom dafay hiir doomi doomaati doom waaye mënta hiir doomi doomaati doomi bay tëx ndax bokkuñu soqee ko waay ci wàll moo tax ngay jël genn wàll xalal ja jox ko doomi doom la ca des lépp nga jox ko doomaati doomaati baay tëx doomaati doomi doom nag perte ndax doomi doom a tax xamut kooku mooy miraas ma naka noonu bu nit ki deewoon bàyyi doomi doomaat mooy sët bu jigéen bu bàyyeekoo ci doom bu jigéen muy benn mu bàyyi fi tamit doomu nijaay ju jigéen doomu nijaay ju jigéen bàyyi fi doomaati doomi bàjjan xam ngeen ne ñett ñii la waa ji dee baax ki gën a jege néew bi mooy dooma mooy doomi doom ndax moo soqee koo ci doom direct ñaareel ba mooy doomi nijaay kon tamit ñoom ñaar a koy doonu këri doo am dara su boobaa jëlal genn wàlla ko doomi doom mu taxaw taxawaayu doom jëlal la ca des tabaarakallaahu jox ko doomi doomaati nijaay mu taxaw taxawaayu nijaay mi taxawan taxawaayu yaay ja leen boole su ko defee moom kee du am dara kon nag wàll yaa ngóog moo ca nekk toujours ki nga xam ne diggante moom ak néew bi nu mu ko gën a jegee rek moom la ñuy jox ca kële nga xam ne mooy ki ko gën a sori bintil binti bee moom nisif bi ndax moo wàcce wàcc waayu loola waxoon naa la ko binti binti binti bintil xaaliji mooy doomi doomi nijaay ja moom su sudus ba nam lañu moom laa doon wax moom la ñuy wàccee yaay tax yaay xam nga mënta jeexal alal su boobaa nag doomi doomaati bàjjan ja moom beneen sudus ba fardan la ca des nag tabaarakallaahu tamit dañ ko koy jox ci nag ci xasable ndax dafay taxaw taxawaayu ni maay bàyyi ndax bàjjan foo ko tuddee bàyyi taxaw na ñoo bokk ku leen boole ci néew bi kon ñett ñi bu ñu fa dajee nii lañ koy dono jëlal genn wàll nga jox ko doom doomi euh, sët bu jigéen bi soqee ko ci doom ju jigéen jëlal sudus ba jox ko doomi doom bi soqee ci nijaay jëlal beneen sudus ba jox ko doomaati doomi doom bi soqee ko ci bàjjan mu des nag la ca des tamit nga joxaat ko doom jooju tamit soqee ko ci bàjjan ji ndax dafay xam ñaari cër dafay taxaw ne man bàjjan laa kon war naa xam lile ta taxawaay tamit ne bàjjan ay bàyyi rek te ñoom noonu lañ koy defee di su ko defee tamit nag jël la ca des moom tamit moom dafay gañe nijaay ja ndax nijaay ja yaaya ko boole kii nag bàyyi ko boole kon nag borom ruxum yaa ngóog mooy ñoo xam ne duñ donn mukk ci xasable duñ donn ci cër waaye bu fa kuy xasable nekkoon ñi perte bu fa borom cër newoon tamit ñi perte ndax la ca des dañ koy jël delloo ko borom cër yi ñoom duñu am dara mi ngi mel nit ku dee woon bàyyi bàyyi tëx bu soqee ko hut ci yaay bàyyi bàjjan dafa dee bàyyi ñaar ñii rek waaye waaye kon xam ngeen ne xalal ja bàyyi tëx ba lañ koy jox rek mu jeex tàkk bàjjan nga joo xam dara boroom ruxum bi borom meen mi fa dajeeg boroom gaño kon dootoo xamati dara gaño ëpp doole bu nit ki dee woon bàyyi mbokk ci wàllu ndey bàyyi bàjjan su boobaa xalal ja ci nattale ci cër dañuy jox mbokk fardan ndax mbokk ci wàllu ndey comme kenn la cëram mooy sudus ñu jox ko ko ba pare la ca desaat tabaarakallaahu a ñu joxaat ko ko ci raddu te danaa la wax mi sam raddu mooy boroom cër yaa des ba jël ba pare mu des xamuñ kenn kuñ koy jox baytimaal amu fa kon dañ leen koy delloo dellooxaat ñoom ñu jël ko kon su boobaa doomi mbokk maanaam mbokk mi le xam na ñaari cër xam na cër bi ko alquran jox te mooy sudus ba xam cër bi nga xam ne tamit ñàkk fee neex keneen moo ko ko jox muy raddu ba su ko defee bàggeñ gi doo xam dara su fekkoon ne nag boroom cër bi nekkut fa duñ ko delloo dara ku ñuy delloo nekku fa fon dañ ko jox bàjjan ja waaye su fekkee borom cër nga fa buñ du delloo te boroom cër yi ñuy delloo dañoo d'accord ñi ci ëpp ci ulamaawu miraas dañu mooy usul ya ak furoo ya waaye koo xam ne jëkkër ak jabara boole kooku moom duñ la delloo bu dara desee ci waxi ñenn ña waaye xam na ñu jàppan dañ leen di delloo ndax boo seetee naka jekk ki bokk ak néew bi bokk naa ak moom ba pare xam dara lu leen mën a teqali ko bañ deexagul ñoo bokk buñ deexee ñoo continuer bokk waaye koo xam ne jabar moo la boole woon ak moom mbaa jëkkër sëy leen boole woon bu dee xasee xam bokkatu leen dara te foo ko foo ko fekk ñaareel jàmbur lay doon bu nekkee ab jàmbur kay wax dëgg yàlla ñu jox ko cëram ba pare mu des xam nañu ne kon kenn du ko joxati dara kon nag su fi dajee ak jëkkër mbaa mu dajee feeg jabar nga xam ne ñoom du ñu ñuy delloo dara kon la ca des dañ koy jox Ah, meen ma muy bàjjan yaag doomi bàjjan yaag ecaajoog nijaay yaag doomi nijaay ya waaye su fekkee ku xamoon cër la te mu nekk ku ñuy def raddu kon la ca des dañ ko koy jox moom waaye li xëpp ci wala maaw miraas dañoo wax ne raddu kenn du ko jox sawju muy jëkkër raddu kenn du ko jox maanaam sawjatu ndax ñooñu daanaka ajnabi yi lañ ñeen nañu néew nag wax nañ ne dañ leen jox képp kuy borom ak cër rek mën nañ laa defal raddu xam nañu ñu gëm loolu moo tax nag am na ñu ne wa yuta zawju aw zawjatu nasibahu kaamilan falaw halakat imraatun an zawjin jëkk nit a dee bàyyi bàyyi bàyyi jëkkër jigéen a dee bàyyi jëkkëram bàyyi doomi doom doom ju jigéen sët bu jigéen bu soqee ko ci doom ju ju jigéen jëkkër jaa moom nisif ba doomi doom jaa moom ba neen nisif ba alal ja jeex mu jeex doomi doom la ñuy taxawee taxawaayu doom rek bu nit dee woon nag jëkkër a dee bàyyi jabar bàyyi doomi doom aa jabar ja aa moom moom rubboox ba ndax doom jee am doomi doom ja moom nisif ba fardan su ko defee tamit la ca desaat tamit ñi delloo ko doomi doom ji waaye duñ ko delloo euh, euh, euh, jabar ji ndax ñu ne ñooñ bokkuñ ci ñu war a delloo su ko defee kon nag wax naa la ko kon zawil arham yaa ngóog ñoo ñuy donn ci ruxum foofa nag bu ñuy donn góor ñaak jigéen ñaa ca xem demee ni doomi yaay buñ koy donu jigéen a góor ay xamle kenn du xëppale sa moroom eh, am nañ riwaaya buñ jëlee ci imaam ahmad mu ne foofa góor ñaar jigéen benn la ndax képp ku yooroo ci doomi yaay góor góor ga ak jigéen nga ñooy xem aa waaye ñenn ñeneen ñi ne déedéet góor ñaar jigéen benn rekk la beneen bi ci tegu zawil arxam ya mën nañoo doon ànd ak ñeneen su boobaa kon dañ leen di jox xatteeb ñañ yooroo bu ñuy bu ñu bu ñuy doon ànd ak ñoo xamee ne nii dañ leen tudd ñu war a xam cër waaye du ñuy xasable dañoo jël ba pare mu des la koy des kon mën nañ ko jox zawil arxam ya ndem bayti maal amu fa wala bu fa amee ku maandu nekkut fa bu nit deewoon tey bàyyi doom. bàyyi doomi mbokk moo xam ne shaqiqatu la an ibni uxtin shaqiqatin bàyyi mbokkam mu jigéen bàyyi doomu mbokk ci wàllu yaay ak mbokkam mu jigéen ak bintu amin moo xam ne shaqiq la kon nag ibnul uxti shaqiqa ba ak uxtuhu mbokkam ma ñoom ñaar ñoo moom nisif ba te dañ cay xem kepp ci mazhab bi waaye foofa duñu wax ne li zakari misu xasi unsayni kon noonu lañ koy jàppee ñoom wali ibnil uxti li ummi doomi mbokk ci wàllu ndey ak mbokkam ma ñoom ñaar ñoo moom sudus ba ci xemoo ala kiltal riwaayatayni la ca des yëpp nga jox ko bintul ammi ba mooy doomu jigéen ñi bàyyi tëx ba mooy jël la ca des kon demeet su ma la ko doon misaal misaal am si la yooyu lu bëree bari la kon nag miiraasa ngóog ci zawil arham yi nii la ko boroom xam-xam yi gisee koo xam ne dangay ngay donu waaye li la tax di donu mooy ci wàllu meen su boobaa comme gaño gi nekkuñ fi kuy xam cër nekkut fi su boobaa kon tamit noonu lañ lay donuloo mu nekk lu leer nàññi ba ca tegu nag dëxaloon naa la lu ñuy tuddee raddu raddu mooy jël ba pare yàlla dogal bi ngeen jëlee xam lu des su boobaa bu desee dañuy jël li des ñi delloo ko borom cër yooya nga xam ne nangu nañ ci ñoom ne mën nañoo xam ak raddu foofa nag moom mbuxus la gu rëy rëy xéewal la gu rëy rëy rëy mi ngi mel nit ku deewoon tey bàyyi yaay bàyyi mbokk ci wàllu ndey xam ngeen nit ñi mënuñoo jeexal alal ji yaay ja moom moom sulus ba mbokk ma tabaarakallaahu euh, euh, ci wàllu ndey moom moom sudus ba kenn la su boobaa kon dafay des genn wàll xalal ja genn wàll gaa des ñoom ñaar ñëpp bañ leen jëlee seen cër yëpp genn wàll ga rekk la te mbokk kii dee xamut ku koy xasable kon masala mii dañuy dellooxat cër ba ca yaay ja dellooxat ko tamit ca mbokk ma su boobaa yaay jile xamoon na ah, sulus ci nattale kon ñaari sulus lay am sulus bi nga xam ne moom la ko alquran jox ak sulus bi nga xam ne raddu bi moo ko ko jox mu xam ñaari sulusam ñaari sulusam mbokk mi xamoon na benn sulus ci nattale ci cër dafay xamaat beneen sulus juróom-benn ya door a jeex kon boo koy jël daal juróom-benn yile yaay ja moom moom ñeent ya mu nekk ñaari sulusam mbokk ma ci wàllu ndey moom moom ñaari sulus ya muy ñaar ya mu nekk bi cëram bi nekk raddu ba mu jeex tàkk loolu lañ gëm wàllu raddu nag ulamaawu miraas dañ cee wuutee ci fuqaawu yi xam nañu wax ne raddu dañ koo war a jox ñëpp képp kuy xam cër rek war ngaa am raddu ba mooy ñaari way dencante ñoom waruñoo xam ci raddu ba waruñoo bokk ca mbuxus ma ñaareelu xaaj ba ne ah kay képp kuy am cër rek donte way dencante nga war ngaa xam mbuxus masaahib yi nag kenn ku nekk ñëw boo jëlee masahabu ñaareel bi mooy mooy jumhuru saxaaba yi li xëpp ki ñoom ak taabiina yi ak abu xanifat ak ahmad ba ca saafii yu ak lenn ci malik maliki na yi mooy raddu buñ koy wax day fekk baytimaal amut te jamono ji xam ngeen ne baytimaal amut su boobaa kon dañuy am asxaabu haadha al madhab alladina lam yaqulu bi raddi ala zawjayni yaruddu ala asxaabi al furud gayra zawjayni li annahum aqaaribu lmayiti bi xilaafi zawjayni li anna kullan minhuma ajnabiyun an il axiri an il axiri linqitaaci sillati zawjiyati bil mawti kon ñoom loolu lañ gëm kon nag raddoo ngóog ni ko borom xam-xam yi gisee mooy cër yaa xëpp way donnu kon dañuy lañuy jox seen cër ya la ca des timit ñu joxaat leen ko comme nañ ca xëppalante woon rek wax ja jeex loolu mooy raddu cër yaa xëpp way donnu muy safaa nag awlu nag awlu nag moom way doonu ñaa xëpp cër ya su boobaa dañ koy dooraat ci seen biir nam damee buñ ko séddalee xaatee rekk mu jub su ko defee kenn ku ci nekk jël sa cër waaye yooyu yëpp ku mën a miraas moo ko mën a génnee ca nam war a demee waaye boo ko mënut dugg ca rek danga lekk xàq jàmbur te miraas lu doy waar la kon nag miraas a ak li ci xaju li ci des nag dama lay wax miraasam ku ëmb nit ki bu dee bàyyi fi soxna bu ëmb waxaloon naa la ko ca duroos yu njëkk ya yàlla dogal mu ëmb ah dañu nettali dund ga dund moom ñaar rekk la xayaatu xaqiqiya ak xayaatu taqdiriya fii nag xayaatu taqdiriya la lañuy defal saxal ak dund ak lay ëmb ca biir ëmb ba ku dee bàyyi nga sa jabar ma nga ëmb dee nga moo xam ëmb bi ci yow la bàyyeekoo wala sax dafa bàyyeekoo ci ku dul yow ndax ah, ëmb ka ko ëmb dana ko donn donte doom ju juddul ci yoon dana donn yaay ja wala koo xamee na nii dafa eh, eh, soxna su waajuram moo ëmb kon nag kii ëmb far force mu donn kenn mënu ci dara fokk moom mu donu baayam ak yaayam wala mu donu yaayam rek ndeem ëmb ba légalut waaye ñàkk donu mënta am mënta ñàkk nekk su boobaa nag nu ñuy def xalal ja cër ab ëmb ja nuñ koy def ay wax rek ci boroom xam-xam yi ñu ne su fekkee ëmb ba ka ca nekk boroom ëmb ba kañ ëmb bokku ci ñay war a donu waaye waay waay waay kay kooka kay jërut xaaree dara ñe doonu nañ doonu rek waaye su fekkee ne nag ca kay doonu la war a bokk nañ ko baaxal cëram ñenn ñene waa bu ñu ko baaxaloon cëram cërëb góor la ñuy baaxam bu jigéen ñenn ñene góor bu ñu baaxee cërëb góor mu ñëw di jigéen la koy des ngi delloowaat ko ca ñoom ñëpp rek ña war a doonu bu dee cërëb góor la mu jël ko muy sansam ñenn ñene déedéet nañ seet ñi nga xam ne kenn mënul leen a tere jël seen cër ya xam nga ne comme doom xamoon na ba pare jabar moom lii cëram leer na. kenn mënu koo ñàkk jël xam nañ ko bu doom xasee xam kay su mun mooy cëram kon nañ ko joxaalee mu dem yaay tamit comme doom xam na wala mbokk ya li mu woon nañ ci waxin moom kay ku ne xam na cëram su dus la nañ ko ko joxalee tam dem ñi ca des nga xam ne wóoragul nag ñoom ñi xaarandi aa ah, li xëpp ci fuqaaw yi daal ñu ne li gën a limtalu gën a wóor nañ xaar ba xam nu muy wànnentul mu jég bëtam mbuba mën naa yàqu muy ñàkk dund mën naa juddu ngeen ne woon kenn far muy ñaar mën naa nekk ñett mën naa nekk fukk ak ñaar mën naa nekk lu ko ëpp tamit kon nag su boobaa kon nañ xaarandi rek loolu mooy li gën a wér kon yooyu yëpp boroom xam-xam ya wax nañ ko ca ah mu des miraasam ku ñu ñàkk koo xamee ne nii xamuñ ma ngay dudd xamuñ deena te moom mii dañ koo war a donu wala moom fa war a donu su boobaa su fekkee dañ koo war a donu nu ñuy de nu ñu donoo alalam ja su fekkee moom dafa war a donu nu ñu koy donaloo te kenn la ci ñaar ñii rek ak ban diir lañ koy def pour war a commencer donoo alal ja kon loolu moom mooy mafquut su boobaa dañ ne diir biñ koy xàppal li ci imaamu Malik waxoon mooy ñeenti xat su ñu toogee amuñ ci moom benn xibaar gannaaw ak gëstu nañ jàpp ne dee soxnaam yi dem ténji ñeenti weer ak fukki fan bu jeexee keneen takk leen yàlla dogal sonn gu ñoo xaraf ñu ne waaja kat téléphoné na wala yónnee na leetar nañ tas sëy ba delloo ko ko su yàlla dogalee nag ku ñaareel ki sonn naa wéet moom comme xaadi moo ko xatte dañuy valider atte ba kenn du ko tasati waa jële ku njëkk ka mooy ñàkk jabar xalalam ja li xalil wax buñ ko doonoo gum nañ baxi ba diirab juróom-ñetti fukki xat ñeen ngeen juróom fukki xat ak juróom juróom ñaar fukki xat ak juróom bi xamsin wa sabina ñu ne ba muy dem ñaata xat la xam ñu juróom fukk buñ ca dolli xatee ñaar fukki xat ak juróom dégguñu ko dégguñ ko ko dégg dañuy jàpp ne dee na ñeen la ngeen nañ bàyyi ba ñam maasee woon ak ki dëkk bi yépp dee xam nga fan yi loolu lépp ay taqdiraat lañ su ko defee ñi door a doon xalal waaye buñ doon woon xalal ja nag mu ne jalañ ñëw haa yéen ñi doon woon la ngeen doon woon mu ngi seen loxo sànkoo gut wala bu sànkoo man ngeen koo dajale xat fay ko dangeen ko koy delloo da ngeen koy jox alalam ji de yaa doon na ñu ne loo doon na ci waa ji mu ne 2 millions demal jox ko jox ko 2 millions yi yow loo doon mu ne 3 millions kenn ne 4 dem leen dagale ji ko jox ko alalam ci ki ngeen doon na woon ndeke deewut ngeen dagale alal gi jox ko ko su ko defee nag ñu ne su fekkee na yow ñoom sànkoon nañ xalal ja fu ñu mën a fayee yoon du lañ ko toppati dara ku leen mën a kalaame tamit dem ci yoon du ñu fay dara ndax koo xamul dara kenn du ko topp dara. te lii tamit ñu joxoon leen bañ lekk ko te ñoo fay yoon a ko validé woon qaadi shar'i yu muy xatteekatab sharia moo ko moo ko moo ko xatte woon te teg ko ci qawaaninu sharia kon ñu ne duñ fayee ci dara waaye ala kulli haal daal lañ leen joxoon bu sànkoo gut dañoo war a dañ koy dañ koy delloo mu ñëpp ci dëppoo bu sànkoo tañ xam lu ñu mën a fayee la gën a sàmmoo mooy ñi ñi ñi delloo ko ndax léeg-léeg lu waa may la lu la yàlla mayut te bala ngaa xam ne yàlla mayut la ko rek dangay dem ba dajeeg sa borom. waaye léeg-léeg nga dem gañe naa dossier bi nangam ak nangam fekk yow ban loi la loi la ko may rek mais loi bi may la ko sariya àndu ci bu la ko mayee ba tax nga jël kër jàmbur mbaa nga jël xalali jàmbur foog ne raw nga bu yowmal qiyaamee da ngeen dajeeg ahkamul ne mu yàlla bu leen xàttee nag foofa la mbir may door a leeree waaye toog fii rek ne man jëloon naa avocat neexal ko li nga koy neexal jaar fi nga jaar ak moom bañ a xëy gañe dossier bi nga foog ne yaa ko gañe xam say këyit yu leer. fekk na leer na fii ci àdduna mais leeragul ci àllaaxira de da ngeen daje kii xatte xat te kooku lu mu xatte loolaay li wér kon nag bul toogati lu la luwaa may nga ne maa ko moom loolu njuumte la kon nag eh, mafquuta ngoog di koo xamee na nii dañ koo ñàkk xamuñ ci moom la mu doon Maalik ñeenti xat la ci waxoon mu tëkkali koo xadis ah Umar ibnu Xataab bi mu jëlee ci yonent mu ne ayuma mraatin faqadat zawjaha fa lam ay na huwa fa innaha tantadiru arbaa sinina summa taataddu arbaata ashhurin wa ashran summa taxillu loolu la yonentu bi waxoon Omar ibnu Xataab moo génnee hadis bi imaamu Malik loolu la wax ñeenti xat lay jëkkër ja di muñ Buxaari yu moo solo hadis bi imaam Saafi yu tamit loolu mooy xatteem waaye nag ñu ñu ñàkk dañoo wuutee bari nañ ay façon de nag ki ñàkk ci guerre waxoon naa la ko kooka moom doo fi toog neen ninkaan bu bu ba jeexee gisoo ko rek dama la yeddawu ji ñu doon noo xalalam ja ki ñu doon ku ñu ñàkk ci am ndox gaala a toj gisoo ko kooku kay ku ñu ñàkk ci avion bi daanu ñu ne gisuñu ko kooka kay jarutul di xaarati ki ñu ñàkk tamit ci réewu jullit ñi mbaa ñu ñàkk ko ci réewi xéeféer yi yooya yëpp wala ñàkk ko ci foo xam ne peste feebara fa ne moom mu dem dugg fa yooya yëpp xuutee euh, na waxaloon naa la ko ca buntab takk soxnaak ya ca aju woon boo ca delluwaatee dana gën a leer su ko defee lu ca mën a am daal euh, mooy xatte ya ñi xamee ko noona su ko defee kon nag nguunu ngaana moo cay tegu muy miiraasam nguunu ngaana nguunu ngaana mooy xunsa muskil mooy koo xam ne dafa lënt ci ay mbiram ndax góor la ak jigéen la xamuñ góor la xamuñ jigéen la su fekkee ne mësoor a gudd yeggagut ci fa muy mësooree am naa na ay yi yiy xamle góor la wala jigéen la su fekkee ne mësoor amagul alaamaat yañ koy xamee dañuy dellu ca médecin ya ak ñu ñaw ñi ci nit ñi danañ mën a xam fu ñu mën a jaar ba xam góor la am jigéen la ci sawloo ko aa ah, fa muy sawee rek foofa mooy xàtteem bu sawee ci payam góor mi ñu xam ne góor la bu sawee ci payam jigéen mi ñu xam ne jigéen la dañ ko laajoon tamit min xaysu yëboolu bu yàlla dogalee mu sawee ci ñaar yëpp ñi seet ban moo ki njëkk a génnee bu payam góor mi njëkkee génnee ñu ne góor la bu jigéen gi njëkkee génnee ñu ne jigéen la suñ génnee ndoor lënt na ñi seet gannaaw bi mu sawee bañ koy sawloo dafay colal wala dafay tuur bu tuuree ñu ne jigéen la bu colalee ñu ne góor la bu boolee ñaar yëpp lënt na ñu ne kon nañ peese saw ma natt ko ci pot ba ca xëpp rek foofa mooy xàtteem buñ tollee lënt na yii yëpp bu mësoor a gut mën nañ ko cee xam mën nañ ko cee xamee bu yooyu yëpp bu mësoor a waaye bu mësooree nag mën nañoo xam seet ba xam moom sikkiñ la sax wala ay ween wax dëgg yàlla bu fekkee kay ay ween la sax kay yu rëy a rëy dañ xam ne kii jigéen la su fekkee ponkalam sikkiñ la sax dañu xam ne góor la bu saxee ween saxi saxi saxi saxi euh, sikkiñ ak i mustaas lënt na ñu ne ah kon nañ seet ba xam dafa euh, dafay jeng jëm ci bànneexu góor lay soxla wala jigéen lay soxla bu leen soxlaa ñoom ñaar ñëpp lënt na yii la yëpp nag boo xamee kooku la ñu tuddee xunsaa muskil kon xunsaa yomb na mais muskil baa jafe la ko daan suñ góor gu leereeru ga daan wax daam xabbaan góor gu baax daana wax ne daam yomb na mais xabbaan jaa jafe waaye xunsaa tamit yomb na de waaye muskil gaa jafe yile yépp ma wax la natteekaay la bu ñuy natt bala ñoo xam ne kii lënt naam lëntut kon nag gannaaw bi mësooree danañ xool ba xam day gis reegal walla ndax dafay gént bu boolee ñaar yépp lënt na dafa sax si kiñam dafa sax ween bu boolee ñaar yëpp lënt na dafay dikkal jigéen ñeem góor ñi lay dikkal bu leen di dikkal ñoom ñaar ñëpp lënt na buñ ca xamee ne nag yenn ya lañ ca xam kooku xunsaa la waaye du xayru muskil la bu boolee yëpp nag lañuy door a wax ne xunsaa muskil la kooku daal dañ koy jox genn wàllu cëri jigéen ci nappale jox ko genn wàllu cëri góor su ko defee loola lañ koy miraasee nañ koy mën waxee nag ba mu leer nañ naññi nañ naññi ba nga mën koo xam genn wàllu cërëb góor googa mooy lan genn wàllu cërëb jigéen googa mooy lan fokk nga delluwaat ci téere miraas yi jàng ko njàng mu leer su boobaa waaye boo ko déggee nii rek te xamoo nañ koy doxalee ala kulli haal yow sax xandaar yi ñu ne tee xamoo ko xamoo ta waafuq xamoo ta maasul xamoo ta baayul ah, ah, ak ak yu mel noonu xamoo ta maasul yooyu yëpp. kenn mënu la koo leeralal ba nga man koo xam ni nga ko bëgg a xamee te fekk jàngululoo ko fokk nga dellu ci téere yi bu baax a baax mooy tax nga mën a xam yooyu yëpp ak lépp loo xamee ne nii xaju na ca wàllu woowa kon nag miraasa ngoog ak li ci xaju lu bari ma leeral laloon ko xam naa incha allah boo ma toppee suba ci waxtu wii ci kartanal yàlla ma sof ak yow li ma sosoon ak yow ci wàllu miiraas yooya du ñàkk danaa ñëw ak yow ci ku tadd duggoon ci diina ji ba ci kanam mu génn ca nuñ koy miiraasee danaa ñëw ak yow ci doom gi judduwut ci yoon nuñ koy miiraasee naka la ñuy miiraasee doom yi rëbboo jigéen gi ëmb na nga ne juróo doom ji ngeen gëñoo nuñ koy miiraasee yooyu yëpp naa la ko leeralal danaa la wax tamit li ñu sopp bala ñoo séddale miraas mi nuñ koy doxalee yooyu yëpp boo ma toppee in insha allahu ak xéwénoo gaag maa bëggoon kër gi nu ngeen cay waxtaanee ba lépp juboo xam ne lii ki ko moomoon kenn la woon te doyu ko deena yéen fanweer yi mbaa fukk yi mbaa juróom fukk yi bu ngeen ko bëggee seddu na leen wër na du leen doy taxala li miraas li ñuy wax du barke mukk te barkewut mooy nit ki lu mu sonn du ca am barke moo tax da nga gis ko doon noonu ci baayam ni million te tey boo amee sarax yéene ko ko kon nañ ci rafetoo waaye suul sa baay ba pare di wuyoo aw santam dëkkee ab gentam di coow ci pangatam àdduna mi mu fi bàyyi woon doxa di mënu koo paase nit bu bëggee tedd la koy teral moo koy liggéeyal boppam ñaq ko waaye lu ñu la ñaqal ba pare sonn ca ba bëgg dee nga ñëw taxaw di ca xóoloo ko xeex ba cay demante ci yoon ay tribunal ak yooya ci xalal li ndonu ku manqué rek ak ñu manqué ñoo koy def te xalal li ndonu lu foor la tu yonentu alquran nee na ku koy lekk yaa ngi mel ni ku tiim safara di ko lekk ndax boo liggéey loolu la lay jural boo ma toppee suba ci waxtu wi ma sof ak yow li ma sosoon ak yow in uridu ila al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu l unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu